similar. coow am na ca gouvernement ba dee eh. laas Ahmadou Ba ministre économie ak finance ak ci Cissé day budget waaw seen diggante ba daal saay bu ñu xëyee muy gën di ñagas mar day taali laa ilaha la ma ne la climat ba fi mu nekk ni ministère ba neexatul yéene kaa gi ne Ahmadou Ba waaw ak Makhtar Cissé bi moo ni nag amoon nañu lépp ngir daal di kon juboo seen diggante waaye jàppal ne ñoom ñaar ñoo ñee ñoo jiite nag li nga xam ne maanaam moom la kon suñu réew mi doon nampé moom la doon dundee di impôt domaine ak xanaa douane waaw daal yoo xamni kon kenn mësta gis lolé ndax baax waaw weeruk septembre gële bi président de la république kontaanee ñaar ñi Amadou matan Cissé ak Ahmadou Ba waaw yaakar gu béré juddoo woon waaye nag juróom ñaari weer lañ ta tek yaakar gaa ngi tàmbalee tas maarité daal yi laa ilaaha illallaah la ay semaine ngi ni machine ba doxatul kon sen digënté ñoom ñaar doxatul de déedéet mbir mi ya yàqoogul waye tamit digënté ba bu tassé day bu mbett kenn ilaha illallah la sé ay jege ñaalé Mahtar Cissé day lañu xamlé rek moy moom Mahtar Cissé mi ñu dénk wàllum budget waaw mo ëpp xam-xam Amadou Ba eh, ko wax moo ko a technique moo a maîtriser moom dal daa ànd ak dal rek bëggul bi kon yàqu déedéet moom la xamal ñam doon jokkool ak ay jege ñaaleem ñamuy liggéeyal waaw yéene kaa gi am na ci ministre boo xam ne nag moom daal daa bëggul kon Ahmadou Ba ministre bi ne xoowul ak Ahmadou Ba de déedéet ay kàddu ne gis nga ca conseil des ministres gae a ah, Amadou Matar Cissé daal buy wax da ngay yëg ne waa daa maîtriser li muy def waaw waaw da koo maîtriser waaye Ahmadou Ba conseil des ministres buy wax day réer daal waaye am na ci benn kilifa di au cadre ba nekk ca ministère gae économie ak finance waaw daanaka def na fa fukki at nee na c'est quoi cette affaire de diplôme lan mooy ay mbirum diplôme yu IGE la nag lan ñang ñang ñang patidi patata ah dama ne Ahmadou Ba dëgg la inspecteur des impôts domaine kese waaye lépp loo xam ni kon dugal na ca loxoom yàlla ja def mbir or yàlla ja def ca barke maa la ko Ba moo ba Ahmadou Bala te moo ni premier ministre bi ak ay ministre sax seen xel dalu ca woon déedéet le quotidien yi ne kay ne plan Sénégal émergent googee a gàllankoor añ cay commencé dugg de mar d' itali ma ne yokkute gi daa daanu laa la wax deux virgule six pour cent taux de croissance 2013 waaw lii tax na ba ki nga xam ne kon moo fi toogal FMI ak directeur général lu DPE ak ministre économie ak finance yi Ahmadou Ba convoqué nañ leen daar daar ca Washington ca Amérique laa ilaha illallah tribune yéene kay ne premier ministre bi day Aminata Touré wax na lu leer ñi mbokkal parti dëgg sax la leen wax waaw waaw mané la Aminata Touré la lay wax ni da leen a xool ci biir beut sen réunion bu mag bala secrétariat exécutif Aminata Touré ci la leen xamalé ak naqarlu lan moy ndey buñ may xas dima attaquer ken duma défendre ci parti ken duma jàppale waye gis nga ba Aminata Touré waxé lolé waw kilifé né ci APR de kenn sëqatul aucun responsable APR n'a pipé mo ken waxu la la wax enquête yéne kay na manker ndjay wax na de ah ci APR waw la fé manker ndjay kay dëkk na Oumar Sarr ci Dagana parce que ministre affaires étrangères di manker néna na Oumar Sarr danañu ko gagné kon ci Dagana gi parce que fukki at ak juróom-ñett nag doy na sëkk ak barke 18 ans ça suffit enquête yéene kaay ne ko may ma yow ma yeggali may ma wax na ci élection locale yi wax na ca coow la am kon ca Mali ak ca Guinée Bissau kee wax na ci APE ak yeneen ak yeneen wax na tamit ci transhumance fàqmaan yi nga xam ne fu ñu takkale du jàllo day PDS ci tribune yéene kaay waaw nee na dew ma APR waaye Macky laay jàppale eh birima ci tribune yéene kaay ne transhumance waaw gétt gi lañ ko la ñu ko jaglele woon de tooy daal maanaam ñu tak nawet bi nan la mel fan la ñax ma saqee fu ngelaw lu sedd li nekkee ça dépend daal ci saison yi ak ci climat yi daal yéene kaa gi ne waaye tamit xam naa ne kon ka jël turu transhumance googe daal di koy indi na ci ëttu suñu wët politique yi le kookee soxor na non soxor na top waaye jafe na tamit suñu homme politique yi le mu métti daal ñu toog di xaar yàlla ñi ko fii def ak a jafe balu neex di kat waaw ñoom daal la leen gënal mooy ñu jël seen i dëgët yor seen i bañ di xool fu nguur neexee ñu toog fay moo xam tey la wala bu ñu toog ta wala toog ta nguur ga ba ilaa jaay ci Abdoulaye Wade la nekkoon dem na ca Macky ci Abdoulaye Wade la nekkoon dem na ca Macky Kalidou Diallo ci Abdoulaye Wade la nekkoon dem na ca Macky moom boo ko tuddee rek xel dem ci ay fàttali yoo xam ne neexul sax ci wàllu njàng mi waaw moo taxit maître Waar nee na dana dugal ab loi boo xam ne ci assemblée nationale ga ngir xeex fàqmaa ni wàllum transhumance fii ak ñaari du mën a ci parti bi ba ca des Souleymane ci laas xam nga Macky dafa am ñoo xam ne dañ koo wër di ko gëmloo ni yàlla akbar déet waay mais Souleymane ne en ah kay parce que fi diggewoon ba nit dara couverture maladie universelle geeg jiwu gi mu waxoon béykat yeeg fourage di xideen rien dara ba dara booloo jeex Abdoulaye Diop ministre économie ak finance ci tribune yéene weddina nee na ànduma kenn soxloo ma benn wax aji mbergan Wade mi lee tribune yéene kay ne kan moo moom journal le pays ak sénégalais point net Karim Wade ak Cheikh Diallo day ku ci nekk ngay jam sa morom cay wàllub yoon le populaire ne Hissène Habré wàllub yoon ba tey procureur général bi day ma ngay menacé maître El Hadj Diouf procureur Mbacké Fall ci tribune yéene kay nee na maître El Hadj Diouf bu dakkalul saagaam yii caabi dana ko féete ginnaaw maar deytaali danañu ko defeere ñu ko jox laa ilaaha illallaah ma ne la Baba Diaw milliardaire moo lépp ne millions yi nga xam ne moom la Mansour Faye joxoon kon joojo joojo Diouf basketteur comité national wi ñu denk wàllum basket bi day sàcc na trois millions yu tegas la fi yëg la ilaha illallah ma ne la gis nga joojo juróomi millions yi nga xam ne maanaam moom la ko président Macky Sall mayoon waaw ndongo Njaay day quatre millions ya la jox joojo ana benn million ba moo jaralaaj dem naa ca lamb ja guy gi ci tribune soox ne zos xaaral rek dina gis te man dina yokk sama poids dinaa ci dolli dix kilo allahu akbar ah guy gi na waaw guy gi ci enquête yéen a kaay yemu ca parce que nee man damaa xiif zos zos ci boppam laa xiif laa <laughs> ilaha illallah alaaji man nag xiif gu bono ma dugg ci suba gi comme que sa waajaa duma ci commenter alaaji tëjal